noonu yeesu siggi seen ay boroom alal ñuy dugal seen sarax ca ndab ya ca kër yàlla ga mu gis itam jenn jigéen ju jëkkëram faatu te mu ñàkk ju fa def ñaari poseti xànjar noonu mu daldi ne ci dëgg maa ngi leen koy wax jigéen ju ñàkk jee moo ëpp ñeneen ñépp lu mu joxe ñoom ñépp dañu sàkku ci seen barele waaye moom dafa sàkku ci néew néewleem ba joxe xaalis bi mu waroon a dunde noonu ay nit doon wax ci lu jëm ca kër yàlla ga ak ni ñu ko rafetale ak ay doj yu jafe ak alal ju ñu jébbal yàlla waaye yeesu ne leen li ngeen gis fii lépp jamono dina ñëw joo xam ne dina daanu ba doj dootul des ci kaw doj ñu laaj ko ne kilifa gi kañ la loolu di am te luy tegtal ne looloo ngi waaj a xew yéesu tontu ne moytu leen kenn nax ndaxte ñu bari ñu ñëw ci sama tur ne moom laa walla ñu naan jamono ji jegesi na bu leen topp ñooñu bu ngeen déggee ay xare ak ay réew yu jóg wattu leen tiit ndaxte faw yooyule jëkk a am waaye taxul mujjug jamono daldi taxaw noonu mu teg ne xeet dina jóg xeex ak weneen xeet réew dina xeex ak meneen réew suuf si dina yëngu yëngu yu rëy te wopp ak xiif dina am ci barab yu bari dina amit ay xew-xew yu raglu ak ay firnde yu mag yu jóge asamaan waaye balaa looloo xew des na leen jàpp fitnal leen di leen jébbal atekat yi ca jàng ya tëj leen kaso des leen yóbbu ci kanam ay buur ak ay boroom réew ndax sama tur loolu dina leen ubbil bunt ba ngeen man maa seedeel fasleen leen yéene bañ a wut lay ngir musal seen bopp ndaxte man ci sama bopp maa leen di jox kàddu ak xel moo xam ni seeni noon duñu ko mën a teggi mbaa ñu di ko weddi seeni waajur sax ak seeni doomi ndey seeni mbokk ak seeni xarit dinañu leen jébbal àttekat yi ba ñu rey ñenn ci yéen te ñépp dinañu leen bañ ndax sama tur waaye seen genn kawar sax du neen seen muñ moo leen di musal bu ngeen gisee ay xarekat wër dëkku Yerusalem xam leen ni jamono ji ñu koy yàq agsi na kon nag ku nekk ci biir diwaanu Yude nanga daw ca tund ya ku nekk ci biir dëkk bi nanga ko génn te ku nekk ca tool ya bul dugg ca dëkk ba ndaxte ci bis yooyu yàlla dina fay jëf yi te li ñu bindoon ci téereb yàlla dina mat ngala jigéen ñi ëmb ca ya yooya ngala it ñiy nàmpal ndaxte tiis wu metti dina am ci réew mi te yàlla dina wàcce meram ci waa réew mi des na leen reye ak i jaas yi jàpp leen jaam yóbbu leen ci réew yi àddina sépp te ñi dul yawut dinañu nappaaju Yerusalem ba kere jamono yi ñi dul yawut mat ay firnde dinañu feeñ ci jant bi ci weer wi ak ci biddiw yi ci kaw suuf xeet yi dinañu tiit jaaxle ndax riiru géej gi ak yëngu yëngu duus yi bu boobaa nit ñi xëm ndax tiitaange bu ñuy xalaat musiba yi nar a wàcc ci àddina ndaxte dees na yëngal kàttani asamaan noonu dinañu gis doomu nit ki di ñëw ciw niir ànd ak kàttan ak ndam lu rëy bu mbir yooyu di tàmbalee xew nag boo yeboo ngeen siggi téen ndaxte seen jot jubsi na noonu Yeesu misaal leen lii xool garabu figg ak yeneen garab yi bu ñu gisee ñu sëq soxlawuleen kenn wax leen ne nawet bi jub si na xaat noonu itam bu ngeen gisee loolu lépp xew xam leen ni nguuru yàlla jege na ci dëgg maa ngi leen koy wax niti jamono ji duñu wey te loolu lépp amul asamaan si ak suuf dinañu wey waaye samay wax du wey mukk moytuleen seen nafsu diigal leen ci yàqute ak ci màndite ak itey àddina ba bés boobu betti leen ni mbaal ndaxte dina dal ci ñépp ñi nekk ci kaw suuf yeewu leen di sax ci ñaan ngir ngeen mën a mucc ci loolu lépp war a xew te mën a taxaw ak kóolute ci kanamu doomu nit ki yéesoo ngi daan yendoo jàngale ca kër yàlla ga te bu guddee mu dem ca tund wu ñuy wax tund olivier fanaan fa te nit ñépp dañu daan teel a xëy ca kër yàlla ga di ko déglu